ay ca bàkk ba jib dema yootu la tribune yéeni kay groupe des médias nee na ani rek lan la nam ani lu président xewle jamono ji dama ni lan la xewle laa la wax ba yëngal suñu magistrature bi ndax ñëpp xam na ne kat sàll ngaari lam tooro mi du def ci daraay neen kon laaj baa ani lan la xewle ba teg tegg gi nga xam ne mu ngi koy amal suñu magistrature Sud Quotidien ni wax ji wax ji mooy président Macky Sall dafa baatarawaat carte gi daal di séddale mbay ma nopp bu baax bi cour suprême Cheikh Ahmed ñu def ko président cour d'appel bu Dakar Amady Diouf fa daal di tëb ma yootu Walf Quotidien nee na kon la justice de fu mu nekk nii dañu ko salfaañee comme njàmpe ñax l'observateur nii yër ma rek nag ma wax la mbiri secret nga ca ah kay lu ca nga sa secret bi du lenn lu dul ñaar ñii a Bakhoum mii ak Abdou Karim Diop le Quotidien ne déet bu leen ko yàkkamti nanu ko benn benn rekk nag ñii di déglu dañoo bëgg a xam ani classement bi fu mu féete bu mu am benn chevauchement le Quotidien ni kon placement bi nii rek la ñu ko tëralee Abdou Karim Diop mooy procureur ko procureur général cour d'appel mu yóbbu fa Amady Siré Ali Ba mu yebbee ay bagaasam cour suprême tribune yéene kaay ne waxu ma ba tey de sama laaj dama ne amul tontu ani lan la président Macky Sall mi dinas ani lu tax mu baatarewaat carte gi ak fii réew mi toll le témoin nii maa fekk le police bëgg kaay rek ma wax leen ani lu waral kon classement bu yees bi ani lu waral président Macky Sall baatarewaat carte gi waaw Amady Diouf mii moom la ñu yóbbu cour d'appel moom rek moo war a jàkkaarloo opposition bi war a dugg séeraas abattoir Ibrahima Bakhoum moo dikkaat ñëpp xam nañ ne kon ala accu la homme bu jàppee du bàyyi te ragalul benn yoon benn dossier le témoin ni may ma ma yeggali Abdoulaye Ba mi dañu ko fi jële ndax nag antanul benn yoon dossier Ousmane Sonko bi ñu andi Moustapha Fall def ko TGI hors classe bu Dakar les économies ma njàmbaas sa dara am ngeen procureur boo xam ne nii donoy la jot Jóob la de amul dellu ginnaaw day bañ na maalaw bañ a woon ne du gis raay ba les économies Abdou Karim Diop laa lay wax de moom ci boppam il est présenté comme quelqu'un qui ne recule la la wax nii dara jaaxalu ko Ibrahima Bakhoum ñu ne moom dossier lu mu tàng-tàng metti rek buy tegu si table mu koy gérer nice laa wax nii good fine da koy gérer te bal tàkk géej gi du ñu ne waaw Siré Ali mi mooy kan moom mi ñu def patron cour suprême mu ne kii mooy zéro faute l'homme qu'il faut la place qu'il mérite yéen kaay bi nee waajaa ngi l'info nii info bi kay des na Ousmane Diagne mi nekkoon avocat général cour d'appel bu Dakar moom la ñu def avocat général bu cour suprême kaay ne ba léegi waxu leen dal sama xel ci magistrature bi dama ne waxagu leen ma ba léegi ani lan lay nas waaye su yee boo ngeen xam ne yéen ñi ñu tabb ci classement bi bu leen fi signature tegee it bu leen fi am bind tënkee jàppaleen ne kon it seen kàddu yéen ko moom bu leen nangu mukk leen def ay xuusma ñaap di leen wax loo jaar leen fii ak dëju leen toog yéenekaay bi nee fexe leen ba fu leen dëgg fekk na leen fa baax loo leen war a wax wax leen ko te bu leen ci nëbb dara nag ndax fii réew mi toll loolu la laaj critique yéenekaay ne fii réew mi toll ne moo ci am biyee boo ñu xam ne sagar mu nga cay xeeñ gi mën naa déborder alerte yéene kaay ne dara du xew laa la wax dara du yëngu tuus dara du xew ndax président Macky Sall nee na dootul may dara Le Soleil yéene kaay nii wax nag laa la wax président Macky Sall nee la woon woon ni na te nguur gi fi nekk nii takku na taxaw et il fera face sur soi ah, nee na Macky mer na de ah kay yéene kaay mer la def nee na nous ne laisserons personne faire du n'importe quoi dans ce pays te nag faw waajur xam ne nguur gi di yar xale yi faw waajur yi jël seeni responsabilité yar seeni doom ndax jooyi xale moo gën jooyi bàyyiwul de nee na sunu diine ji dañu ko mooñaale sunuy tarixa ñun lii la ñu xam te lii la ñu am lii moo andi jàmm ci réew mi ku gis leneen jëlal dem foo xam waaye nag fii ci réewum Sénégal duñu nangu mukk salfaane sunu diine ji ñàkk a wekk sunu kilifa diine yi loolu duñu ko nangu Omar Sarr ci la témoin njiital PLD ànd suqali nee de lii rekk nag mooy dëgg yootul vox populi ministre Omar Sarr nee na Ousmane Sonko mii ak waa jot nañu tëj leen seen ab ànd nga xam ne defuñu lu dul teg ba sunu kilifa diine yi ñàkk leen ba léegi la ñuy dégg ay kàddu wi ñaaw ñu def ko baak ay saaga xale yi di ko fowee ci ñoom lañu ko déggee yàq der gi ci kilifa diine yi ay nit nekk ca biti réew yor seeni vidéo rek nag di saaga sunu xalif yi kenn sañatul wax koo sa laaj mu ne damay bañ ko yàq sama der wala ko ma saaga wala dama am njaboot bi ñu jógee ba léegi lañu ko dégg te politique yàgg naa am ci réew mi kàddu gu nekk dégg nañu ko fi waaye xeetu dox leen géegu yees la te du lenn lu dul ñoom ñii jeexal nañ fi respect ñu ne déete waaye ñuy xarab suñu kilifa diine yi président Macky Sall nee na fii réew mi yaakaar ne dañu leen di bàyyi ñuy def nu leen ne nee na agenda politique bu waaye manti am bie boo ne bu fekkee dafa nar a yëngal réew mii waay waay duñu ko seetaan waay le mandat ne ko njiitu réew mi fekk na kilifa diine yi de nee na lii nga xam ne moom la ñu sumb ci réew mi ak jàmm daal di fiy sax ñàkk a wegg daal di fiy jóge lii ñu rax ñu seppi sànni nee na doxal leen si ba kenn laal leen mission bi dama ne doxal leen si réew mi dafa am ak njiitu réew am na ngornement te l'état doit rester fort laa la wax bés bi la journée kon bés bi dikk dikk na de askan wi dañuy wiji woote Seydina Issa Laye cent quarante appel bu laayeen yi borom aaji boo daay laay dama ne ji lañu ko jëmmal journée kon tey rek ñu dikkaat ci histoire rappel bi visité waat histoire première xalif bu laayeen yi taaw Mahdi bi direct news ne xajal ma ba jàll tey na lépp weex dama ne day weex na lépp weex ndax jant bu fenk na soow lii mooy histoire bi 1843 ñu dellu ca gannaaw diggante maam Alassane Thiaw ak maam Kumba Ndooy turu limaamu daal di fàttaliku bés boobee ci diiru ñetti fan ndoxum géej gi sa yoof am beneen gu lewet doom mboolem ku fa juddu nga am tur bu nu mel jàppal ni màggoo ndax tur bi benn la mënu ko woon a bokk ak kenn borom aji boo daay laahi nee na wuy ji leen woote sunu borom ndax jant ba fenk na soow kàddu gi la yëkkati xale yi def comme diiraan ñii naan wérul mu dox wutali géej ne leen yéen a ma xamul de waaye géej gi xam na ma mu samp ne ko dellul ginnaaw géej ga di dellul ginnaaw géej ga di randu ginnaaw géej gi dégg ndigal randu mu daal di samp jàmm laay 143